sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa saxaabatihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare di leen balu àq di leen ndokkeel ci fan yu tedd yi ñu nekk muy fukki fan yi njëkk ci weeru tabaski di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi ñu nekk muy bis bu àjjuma di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu nangul ñu ci suñuy jaamu yàlla yépp di ko ñaan mu jéggal ñu suñuy bakkaar di ko ñaan ci ak mbaaxam mu yàggal fi suñu kilifa gi cheikh Mouhamadou Mountakha xafisahu llahu taala wa ayadahu wa nasara yokk ko ak wér te àggale ay yéeneem yépp nu rekk si rek ci fàttalente lu jëm ci bis bu màgg bii ñu dëgmal muy bisub tëbaski ak fukki fan yi nga xam ne ci lañ nekk muy fukki fan yi njëkk ci weer wi di bis yu màgg lool bis yu tedd lool bis yoo xam ne jullit bi saabu ci nekkee war nay gën a góorlu ci jaamu yàlla ndax lépp loo xam ne def na ko ci lu baax suñu borom sono wa taala dana ko ko fulal muy bis yoo xam ne <coughs> fépp la jaamu yàlla màgge bis yëpp la jaamu yàlla baaxe waaye day am bis yoo xam ne nag da cay gën a feddliku ndax bis yoo xam ne suñu borom subhanahu wa la waat na ci day wane màggug bis yooyu te wax nañ ne wal fajri wa layaalin fukki fan yooyu ñuy wax muy guddi yooyu mooy fukki fan yi njëkk ci weeru tëbaski nga xam ne boroom xam-xam yu mag yi tàmbalee ko ca saxaaba ya abdullah ibnu abbas wax na ne mooy fukki fan yi njëkk ci weeru tabaski muy fukki fan yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam soñ soññee na lool ci ñu ñu di ci farlu di ci góorgóorlu ci jaamu yàlla ndax yonent bi wax na ne amul yenn fan yoo xam ne jaamu yàlla ca la gën a màgge ci fan yi nga xam ne moo mooy fukki fan yi njëkk ci weeru tabaski wax ne mal amalu fi ayaamin afdalu fi hadihi al amul fan yu gën a màgg ñu jëf ca ñu jaamu yàlla ca yu gën a màgg fukki fan yii ba ko waxee am na saxaaba yu ne ko ah ku génn di jihaadi nag loolu de xanaa moo war a gën a màgg mu ne ba sax day gënu koo màgg lu may koo xam ne dafa génn ak alalam ak bakkanam dellu si wut loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ciy wane rek ne fan yi ñu toll yu màgg la yu mat a farlu la ci ak jaamu yàlla yu mat a farlu la di ci tudd yàlla ndax am ni mu waxee ne amul fan yoo xam ne ci la jaamu yàlla gën a màgg ci la yàlla gën a soppeeku ko jaamu yàlla ci fukki fan yi da caa teg ci beneen xadis ne na di baril di wax laa ilaha illa allah di wax allahu akbar di wax alhamdulillah kon di faral di tudd zikkar yooyu eh, ndigal la lu jóge ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñu di ko far di di baril laa ilaha illa allahu akbar walillahi alhamdu ñu war a bàyyi xel nag yi nga xam ne sopp nañ ko ci fukki fan yii te li ma wax léegi jiitu ci mooy di tudd yàlla waaye di def jëpp jëf ju baax joo xam ne boo ko defee am ci tuyaaba boo nekkee ci fan yi war nga caa góorlu bokk na ci yiñ gën a sopp nag mooy ci fan yi mooy koor koor ci la bokk ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam daana woor juróom-ñeenteeli fan ci weer wi loolu sayyidatuna Aïcha radiallahu taala anha wax na ne yonent bi da daan woor juróom-ñeenti fan ci weeru tëbaski ak bisu fukki fan ci tamxarit ak ñetti fan ci weer wu nekk kon woor ci fàkki fan njëkk yi rawatina juróom-ñeenti fan yi lu baax la luñ sopp la ndigal la lu jóge ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam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 أشهد أن محمد كلا le salat hayya ala salat hayya ala al falah kon bokk na ci yi nga xam ne dañ leen a taamu lool sopp leen ci fukki fan yi ginnaaw di tudd yàlla ak di woor mooy di dimbalante ndimbal nag dañuy wax ne jamono ju nekk li nit ñi gën a aajowoo dimbale leen ca day bokk ci li gën te ku ne xam ne buñ tolloo ci jamono yi ñi nga xam ne dañoo aajo bokk na ci li ñuy aajow mooy lu jagal bis bi nga xam ne bisub feet la ci jullit ñi muy bisub tëbaski kon képp koo xam ne danga nga mën a dimbali ku néew doole ba lay defar bis ba mu am loolu dafa bokk ci ndimbal yi ñu gën a taamu te loolu day wane it ne jullit yi niñ war a nekkee ni yonte bi alayhi salaatu wasalaam wax ne jullit dañoo war a mel ne ab tabax beneen xadis mu misaal ko ci dañoo war a mel ne jëmm lu ci ab cër yëg moroom cër yi ci des yëpp yëg ko noonu lañu war a mel ci waxtu yoo xam ne waxtaw aajo la ñi mën a dimbale ñi amul xar mën leen caa dimbale ñi mën a dimbale ba ñi nga xam ne amuñu luñ solal seeni njaboot ñu fexe ba solal leen loolu yëpp ci ndimbal la yu baax a baax yoo xam ne yu mat a bàyyi xel la buñ tollee ci jamono yi mu bokk ci teggi ni ñu war a bàyyi xel nag ndax jaamu yàlla gum mën a doon dafa am luy tax suñu borom subhanahu wa taala nangu ko mooy teggin ya nga xam ne moom lay àndal teggin yi jiitu nag ci tëbaski mooy sellal yéene ja nga xam ne moo koy lal ndax day am jaamu yàlla yoo xam ne boo deful ndànk rek la cay cërub bàkkan dana yóbbaale la cay cërub diine wala la cay cërub aada yóbbaale la cay cërub diine te loola nag la cay dimbali nit ki mooy mu teewlu bàyyi xel la muy yéene ca jaamu yàlla googe ndax ndaw kundaa yu bari bis ba lay seen xel di dem rek mooy ndawal ga ak nañ cay mën a jëfandikoo loolu da cee bokk waaye lii suñu borom wax ne moo ko ci gën a yitteel mooy liy nekk ci xolub nit ki la muy yéene la muy fas ci xolam mooy xam ne yàllaa ko ko digal mu di ko def ngir jaamu yàlla yëga ci màggug suñu borom ak yëga ci xéewal gi ko suñu borom def ndax mbindeef ni yow suñu borom tàggatal la ko nga mën koo tër rendi ko jëfandikoo aw yàppam te ba noppi ñu fay la ca loolu teraanga la ju suñ borom subhanahu wa laa defal doomu aadama mu war koo yëg xam ne ni mu la defee doomu aadama def mala bi mala ba nga ma ba tàggatal la ko noonu la mënoon a nekkee ab safaan te moom suñu borom laa yusalu amma yafal kenn du ko laaj li muy def te moom moo wax ne lan yanaala llaaha luhuumuhaa wala dimaa'uhaa walakin yanaaluhu taqwa minkum kon li am solo mooy li nit ki fas ci xolam jiital ko loolu nag boo ko jiitalee dalay dimbale ca la ngay def day dëppoog la nga man ak na nga ko mane ndax booy def ngir yàlla dangay def la nga man bañ cee dugal puukariwu bëgg cee dugal eh, bëgg ñu gis la bëgg ak ak ak ëppalante loolu yépp day tax jaamu yàlla gi nga li nga ci waroon am ci tuyaaba doo ko ci am wala yaasu jullit nag lu muy sonn lu nekk bàyyi xel la ko ca suñu borom digal lay tax mu am ci tuyaaba loolu dafa dafa mat bàyyi xel te yonent bokk na ci teggin yi ki nga xam ne dafa nar a tabaski yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bu duggee ci weer wi na bàyyi lewiku wala dagg kawaram loola yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax ne saa bu ngeen gisee weeru tabaski ca am ci yéen koo xam ne nar naa tabaski na bañ a dagg weyam na bañ a dagg kawaram bokk na ci teggin yi kii tabaski tànn am tëbëski mu baax mooy mu mucc ci ayib yi nga xam ne day tax du matum tabaski waaye mu bañ caa dugal nag puukarewu wala ëpplente bokk na ci teggin yit nit ki nga xam ne dafa war a tabaski mu bàyyi xel waxtu wa nga xam ne moom lañ ko digal mu rendi ci am xaram bañ a dàkk rek waxtu sàngam rendi te xamoo imaam ji nga xam ne yow mooy sa imaam rendi na walla déet ndax képp koo xam ne kat dafa njëkk a rendi waxtu julli gi day mel ne du am tëbaski ndawal rek lay am te loolu yonent bi alayhi salaatu moo ko wax ne man kaana zabaxa qabla salaati digaloon na koo xam ne dafa rendi woon te julleeguñ ne ko na rendiwaat waaye it ku ko man nga rendil sa bopp su fekkee ne man nga ko soo ko mënut it man ngaa jox ku la rendil mën nga koo mën ngaa wakiil koo xam ne moo lay rendil waaye sopp nañ buy rendi mu jubalee ko xibla yéena ca jaamu yàlla te rafetal rendin wa ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne yàlla dafa bind ak rafetal ci lépp bu ngeen dee rey na ngeen rafetal na ngi reyin waaye bu ngeen dee rendi na ngeen ko rafetal na ngeen di rendee ki nga xam ne dafa war a lewetal am xaram na fexe ba la muy jëfandikoo ñaw ñaw goo xam ne dana noppal la nga xam ne moom lay rey mu ne inna allaha kataba al ixsaana ala kulli cheyin fa ida qataltum fa axsinu alqitlata wa ida dabaxtum fa axsinu zibxa wal yuxidda ahadukum shafratahu wal yurix zabihatahu kon bokk na ci li nga xam ne it sopp nañ ko mooy nit ki bu rendee am tëbaskeem na ca jëfandiku mën na caa maye mën na caa saraxe ndax li suñu borom wax ne fakulu minha wa atimul baisal faqir yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne na ngeen ci jëfandiku na ngeen ci joxe ñeneen ñu jëfandikoo ci waaye na ngeen ci denc ndax dafa am jamono yoo xam ne dafa tere woon denc gi ginnaaw bi mu diglewaat mën ngeen cee denc ndax bëggul ak yàq ndax jamono joo xam ne ñu bari dañuy lawetal su fekkee ne nag saraxewoo ko dencoo ko ca mënoo koo jëfandikoo la muy jur rek mooy ak yàqute lislaam bëggul yàq kon nañ fexe ba bàyyi xel li ñu ci yontu bi alayhi salaatu wasalaam digal ca la ñu cay joxe it ñu fexe ba mu nekk jaamu yàlla ñu yéene ko ci jëfandikalu yontu bi salaam salaam bañ koo def aaday kese ndax ren ba noppi génne ca lu bare bare ay tànk kii fàllara ca yéene ca dara te boo ca yéene ak jaamu yàlla mu doon ko ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam digge na ko loolu mooy lu mat a bàyyi xel la kon ñuy ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu nangul ñu te kàttanal ñu ci lépp luñ ci def rek mu nekk ak jaamu yàlla gu mu nangu kon ñu ñëw nag ci xutba bi nga xam ne moom la imaam war jàng léegi te muy xutba boo xam ne dafa jëm ci soññee eh, xutba bi da ci ginnaaw bi mu sante suñu borom subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moo digal suñ maam Ibrahima ne ko nanga laabal sama pàkk bii ci ñi fiy ñëw di ko wër ak ñi fiy ñëw di fi sax di fi nekk di fi jaamu yàlla def barab boobu muy bilaadul xaramay ni muy xaram ba muy def ko wéeruwaay ci ñi nga xam ne dañoo am tiitaange waaye ak ñi nga xam ne dañ fay ñëw mu seede ne amul benn buur bu dul yàlla seede ne muhammad sallallahu alayhi wa mooy ab yonentaam mu wax ne yéen nit ñi na ngeen jublu ci li nga xam ne moom la leen seen boroom togg ci yéwénal seen ëllëg yéwénal seen àllaaxira te bay wan ginnaaw li nga xam ne moom suñ borom subhanahu wa taala garantil na leen ko ci seen mbiri àdduna ndax képp koo xam ne dafa jiital mbuum àddunaam loole day nekk ab cëram ci àllaaxira te du tax mu am ci àdduna la muy wut képp koo xam ne dafa jiital cëram ci àllaaxira dina ca yegg te dina am ab cër ci àdduna ci àllaaxira lam cay wut dana ko am wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allahi huwa xayran wa azama ajra wastaxfirullaha inna allaha gafurun rahim mu wax ci xutbam ñaareel bi ginnaaw bi mu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax na yéen nit ñi na ngeen wogosu na ngeen fagaru bu baax a baax a baax ngir ëllëg ngir seen àllaaxira ngeen jéem koo dundal te bañ a jiital seen àdduna ngeen jiital àllaaxira ndax àdduna du ngeen fi sax du ngeen fi dëkk na ngeen doxale seen diggante ak maandu ak rafetal na ngeen moytu seytaane moytu bànneex ndax seytaane da leen di woo rek ci sawara waaye bànneex moom da leen di yóbbu ci lu leen di doyadal na ngeen lu seen boroom na ko bàyyi xel ndax moom kat day fuglu képp koo xam ne jaamam la bu koy topp walla mu di ko mooy ndax suñ boroom waxtu wu nekk mi ngi ñuy foglu mi ngi ñuy gis mi ngi ñuy dégg mi ngi xam ci lu ñu nekk kon na ngeen taqoog ragal yàlla ni nga xam ne noonu la ko digale jaamam ñi dénk leen ko wax ne yaa ayuha alladina aamanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslix lakum acmaalakum wa yaxfir lakum zunubakum wa man yuti llaha wa rasulahu faqad faaza fawzan azima yàlla nañu suñu borom subhanahu wa taala jéggal ñun ñëpp jéggal mboolem jullit ñi ñuy ñaan suñu borom mu yàggal fi suñu kilifa gi Cheikh mu Mountakha yokk ko wér ba mu àggale ay naalam ñaan yàlla mu def jàmm ci réew mi def ko ci àdduna yëpp fépp fu jullit nekk di fa tumuranke ñu di ko fa bundaxatal yàlla na ko suñu borom dooleel kàttanal ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.